على ولا كل حال هدايا مدين السلام عليكم شيخ عبد الكريم مباكي مباكي نونغي سياري دي سياري mboolem njabootu برون Cheikh Mamadou Lamine di fi برون borom bunt kër mbàkk yéen a sàmbaroon guddal suñu fan te dafa leen wér li seen maam ju tedd ja ñaanoon boroomam rek ci loolu rek ngeen nekk bennoo taxaw ci diine lislaam taxawaay bu mat sëkk Cheikh Abdoul Karim Mbacke jërëjëf noonu Cheikh Baara Karim doon wax léegi Cheikh Baara laa doon wax léegi ci say ngërëm ak oto yoo jox sëñ bi juróom-ñaari kàttaa si di seere naa ko dees moo ci mujjoon moom la ñu joxoon sëñ sëñ dees ba moo ci mujjoon moom joxoon sëñ sànna moom sëñ ñaan jóob keroog ba mu ko joxee dees boobee Cheikh Abdou Rassid ne ah man de Abdou Karim lu mu am jox ma te booba day tuut tànk la daldi jël lu bàyyi ko ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul nekkoon ci loxo loxoy Cheikh Mouhamadou Lamine nekkoon ci loxo moom Cheikh Abdoul Aziz mu jox ko Modou Fall sama doomi na jaay bu mu laal suuf ba nga jëm sañ jox ko Cheikh Abdoul Karim Mbacké yal na saabaru guddal fan bi ak mboolem njaboot bi soppe yi wëllëri yi sëñ Abdoul Aziz xarit yi soppe yi wëllëri yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di waxit ci turu magi taalibe yi ak taalibe yi cant gu ñu beral sëñ Madické Niang ni ko Cheikh Bara Laat mi waxee la léegi sëñ Madické Niang mboolem taalib yi ñu ngi lay sant ñu ngi koy gërëm sëñ bi boo demee nga jot liñ cant kooku lu tax taalib yi dafa am liggéey bu ñu doon liggéey mu jël ko ci seen loxo di ko def ñoo xam ne si seen kàttan aguñ ci woon mënuñu ko woon noonee te at mu jëm mu gën ko sellal yenn saa bu guddal fanam ak mbooleem ku am yéene jooj e, di sant soxna Waalo Mbàkke ak mboolem daayira jigéen ñëpp ñu ngi leen sant seen taxawaay ci liggéey bi gis nañ ko de sëriñ bi sant na leen bu baax gërëm na leen jëmm ju tedd ji ñu fi dajale nag am na juróom-ñetti ngërëm juróom-ñetti seere yoo xam ne seen seere su si nekk rek doy na tàmbalee ci seex Muhammadul Moustapha Mbàkke su ko waxtu bi may woon dañu wax par benn benn waaye waxtu bi mayewu ko waaye ñu junj ko noonu ñëw si Cheikh Mamadou Fadal mu dàq ngërëm mu seere ko waaw waaw Abdoul Aziz Mbacke ñu ngi sant rek di la gërëm di am yàlla rek liggéey ju xoj ci jubal sa ñoom ndigal lu ñu la jox rek nga jëf ko ba jëfee ko no ko ba njort waxtaan loolu ne sa mbubb mi rek loolu suñu fàllu waxoon mu ànd ak moom ba ba mu ko gisatul mu jog taxaw kàttu taxaw taxawaay ba mu taxawoon ci sàkku ngërëmal boroom ak sàkku ngërëmal ay juróom ci Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad cant ga mu ko sant ak ngërëm la dafay xoj waaye kon benn benn lañ ko wax ba egg si sëñ Abdou Khadir benn panu tabaski sëñ Mbàkke Faa Jama la yebal si woon ba mu ñëwee dafa wax ne Cheikh Abdou Khadir day nee na xat-xati jamono waaye kon mooy teewal mboppam fii nee na Cheikh Abdoul Aziz day lépp lu ko war diggante moom boromam def na ko lépp lu ko war diggante moom njabootu borom Tuubaa def na ko moom nag nee na moom dañuy ànd lu mu nekk ñu bokk si nekk moom it lu mu nekk ñu bokk si nekk ñu sor xool de waaye boobu dégguñu woon fa mu waxe fa mu waxe de ba mu agsee diis na lool te metti bañ ko gisut altine alxames see xam daa si fekk ko ah booba de metti na foofe la suñu Abdu Xaadir waxe woon eh, seere yooyu ñu tedd ñi nga xam ne kenn ko ba mu ko seere mooy borom Touba ñu ñëw si seere si nga xam ne moom la ko président Abdou Diouf seere woon nee na Cheikh Abdoul Aziz jàmbaar la as ku juble la ku jubal ak njabootam la mësul gis fenn fu mu ñaanale intérêt ci njabootam mësul laaj gouvernement yi lenn lu jëm ci njëriñal boppam njëriñu adduna si kay nee na lu muy laaj gouvernement ndox forage nee loolu adduna si ko bokk nee na lu muy laaj gouvernement aw yoon yoon ñëpp a ko bokk bi su jaar bi ñee nga sa jaar nee na lu muy laaj gouvernement ab àll mu gor ko liggéey jaamu yàlla lii la ko Abdou Diouf seere décoré ko kon kooku mooy Cheikh Abdou Aziz Cheikh Abdou Aziz eh, jàmbaar la eh, borom la maa ngi fàttaliku yëkk mu joxoon donga yi ñu rendi ko ci pénc mi moom ñaari waxtu séddut foo jaar mu xool la soo ko joxee mu fuuf tundiku la bañ jaaxle ñu ñëw ne ah sëñ bi nag ñu pël joxante booba te mat na ñetti waxtu la moom du mbàkk mu ngi waaxu ñëw wër ko di yàqu duwaat kër gi mu yokku sedd ñu ne ko mbàkkee donga yi tiit na ko ne mbàkke tañ ko sànni ji mu ne déedéet jox leen donga yëpp ak kër yëpp na ñëpp am bañ ko defee ba si gannaaw ëllëg si mu ne hmm, penc muñ ko rendee woon mu du sama moom mi di mu tas la ilaha illallah ah. eh, pël yi daal di wax ne ah booba eseg na dana ñu def lu esegut du ma nga dem na bu see fii ca teen bee lay daanu ah, ñu di ko jox jox ñu ko dégg ci taalib yi mu metti leen lool bi sëñ bi ñëwee fanaan si ba seet mu daal jubal teen ba ah ñu ko déggoon ci donga yi yàq lool na ba mu ñëwee it mu daal di jubal tànk yi ci biir teen bi toog ci pind bi ah lañ doon def mu dindi ko <laughs> daal di jóg daal ci dellu ci kër bi ci suba sa ka defoon loola taawoo ma daanu ca teen ba dee kooku mooy Cheikh Abdou baatin la bari lool benn bi mu mujj jënd mu jëm ci jumaay Mbàkke Kajoor daa ñëw ba Mbàkke Daaru naan mu ne du wàcc yoon sofar su bari ñëw ne ko boo mën a suuf noonu mën nañu suuf jox ñu oto bi ñu yóbbu ko mu ne sama oto bi du jàdd suuf si sëñ Abdou bàyyi ko Touba ñëw fekk Daaru di ko ñaan mu woo ko mu ñëw ko ñëw nga mu ne ko waaw man Mbàkke Kajoor ñaari kilomètre la war a tolloole mu ne ko man de sama oto moo du mën a jaar suuf si mu ah, baax na man de Mbàkke Kajoor laa la fayoon fu am laa waxoon waaye boo ko sottee samay oto roñ ko soo tuba ko de daal dina leen bu ko kenn ñaanal si dara man da ñaanatuma ko dara daal tàlloo tam dem ba mu duggee si biir bi ba si ba si benn bi mu ne bërit la ko delloo du xamu ko waaye yu dem na Mbàkke Kajoor ba mu wëree jumaa ji bees lépp sotte ko mu yuuxu ne sëñ bi ñu ngi may gaañ ñu ngi may gaañ dawut si sëñ bis mbay ndaw booba mere na ko bëgg a dox diggante ma sëñ si ma sëñ ne na ko bàyyi ko rek mbay bàyyi ko mu ñëw kooku mooy Cheikh Abdou yal na sama borom ba dool seen maqaama seen leer yal na borom ba yàggal njabootu mboolem njabootu suñu baaram Mbàkke laa wax nag buntu kër yëpp nag kenn ku si nekk ka fa nekkoon saxoon ci diine lislaam di sellal ka mu fa bàyyi woon fa mu taa fa mu yemoon foofu la taalim ba lay jëm ko bennoo gi ñu bennoo yi nag Cheikh Mamadou Lamine moo ko ñaan borom moom tabaraka wa moo ko ne sama ñoom ñii nañ mucc ayib mucc ayib ne mooy teg si tànk si siraatal mustaqiim ne ko saa bu ñu xëyee nañu gën a womma taalibikum ma nii nañ jël taalib yi teg leen ci siraatal mustaqim bu ëllëgee ñëpp am jàmm wa an takunu sababal jannaati wa sababal firdawsal minnaati loolu Cheikh Bara ñaan wa an takunu sababal kamaali fi alihi ya rabbi fi maali loolu Cheikh Mamadou la ñaan wa an takunu sababal xufraani ma al bisaaraati madal isma mbaa ki yan fan yi gudd. aouzu billahi min acheytaan rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيو جيتال سي نيو بي مولانا الشيخ منتخب xaadimu الرسول di يالله yàlla mu yàgg lool ci wéram njabootu sëñ Tuubaa gépp waaye di di nuyu sëñ Abdul mooy kilifa kër gi kilifa jataay wi di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ci wér ak mbooleem su yox yi nga xam nekk nañ fi muy kilifa yu bàyyiwuñ kenn di nuyu képp koo xam ne rek déplacé nga ci ñëw fii ci cérémonie officielle bi di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax waaye dafa mel ne ñaar ñi jiitu moom seeni wax doyoon na ci cérémonie muy sëriñ Cheikh Bara Lahad ak sëriñ Mawo Sall waxi sëñ Bara Lahad yi rek doyoon na daanaka mënoon nañu ñaan waaye bi Baye Mawo del see it moom it historique bi nga xam ne def na ko wane kan mooy sëñ Abdoul Aziz loolu itam lu am solo la ndax ku ne jàngee na ci xam kan mooy sëñ Abdoul Aziz mënoon nañ koo xam mu di sëriñ rek waaye baatin bi nga xam ne nekk na ci biir tey mel na ne Baye Maw wane na ci lu bëri kon loolu itam ñu ngi leen sant bu baax bu leen ci gërëm bu baax waaye di leen nuyu ci turu monsieur le maire Abdou Lahad Ka mi nga xam ne maire de la de Touba yabaloon nu fi ne nañ ko fi teewal ndax moo waroon a ànd ak nun waaye ci bëccëg ba léegi mi ngi fi léegi nii bi may wuy téléphone la ma wax ne ma naa wax sëñ Abdou Aziz sëñ euh, Aziz Cheikh euh, Abdou Aziz ne ko dama bëggoon na dellusi waaye dafa am ku feebar mu nekk ci loolu moo waral dellusiwaatu kon nag na fi toog ba jataay bi toog liñ fi war a wax nga wax ko liñ fi war a def nga def ko comme ni ko sëñ Cheikh Bara Laat waxee nag man suma fi Abdul ne nak fi tewal dama fee tewé ci ñaar moy benn bi mu wax légui ñu bokk nde sama wajur sëñ Abdul Ahad yoroon ko mu bokk ci ñiko tenji kon la waye sëñ Abdul Aziz mi ñuy magalal tamit yoron sama mak, soxna ndey gi ba am ci soxna khadi mbacke kon itam ma amatu fofu kon ni mu ko waxee dama bokk ci kër gi bu ma fi ñëwul ngir mairie bi sax dama fee ñëw ngir sama bopp ngir ci kër gi laa bokk kon ñi ngi sant bu baax di gërëm bu baax wax naa ne wax dana jafe lool ci ñaari kàddu yi jiitu waaye nag kàddu mairie bi rekk lañuy ñuy waxee bi nag li ma Abdou Lahad yónnee woon mooy ak cant di ko digtal sëñ Abdul Karim ci taalibeem bi rakkam ji lépp muy sëñ Abdul euh, euh, euh, sëñ Sidi Abdul Aziz ndax sëñ Sidi Abdul Aziz kat adjoint maire la topp ci Abdul Ahad waaye ñun ñi nga xam noonu lay liggéeyal ndool fële ca mairie ba am na cër buñ ko jox ci cër bi lu ko war lépp moo ko liggéeyal bopp moom am na ci ñoo xam ne sapeur pompier lañ ko tuddee képp koo xam ni am na problème ca mairie ba wallahi nazim li may wax sama bàmmeel laa tiim yàlla rek ka ma tax di wax jaralu ma fen keneen jaralu ma fen waaye bu ko yëgee day woote ci buroom ñu mën a doon lijjanti problème ba moom réglé coow Abdou Lahad sax du ko yëg yaakaar naa ne loolu moo appliqué kenn ku ci nekk loo mën a nekk tey bu ah, sëñ Sidi wootee wala nangam ak lu mën a doon loola bàyyi nga ko jàpp nga ko ca loolu ak jëfam la céefam la taxaway ba nga xamne taxaw nako fofu yàlla rek lañ koy séeréel ak mamum Serigne Touba mi tax mu koy def ndax wax deug yàlla taxaw na fa taxaway bu rafet nak ci gel na ci kër gi nga xamne ñoko fa repre yeb won mu représenté nak muy kër serigne mahoud Lamine taxaway bu ma seuk taxaw nako fa taxaw ko ci mairie ba waye nak damay daw ne taxaw nako ci ñëpp ndax mom amul mairie bi amul len yalla ko def muy ndey ji seex yor ñëpp loolu mo wa kër gi ma nek ñom gëna xam ce loolu itam lu am solo la ay mbokk moom dañ ca nekk gën caa tuuti gën caa néewle waaye yàlla moo lay teg fañ lay teg ci yàllaa ko teg fi mu ko teg li ko waral itam jëfam la ci doomu aadama yi kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm bu baax en tout cas mairie bi nga xam ne nga fay liggéey day wax dëgg yàlla ñëpp a ko amee njëkkee avant muy dem umra rek ba fan yii rek am na problème bu rëy bu fa amoon waaye wallahi lazim ca buroom la woote ñu toog fa pendant trois heures quatre heures de temps mu régler problème bi cuub daal di nuyoo ne dama war a dem gomtu nii parce que dama war a dem mag xam nga loolu lu am solo kon ñu ngi koy sant bu baax daal di gërëm man bu ma doon wax ci qualité yi mu nekkee ca mairie ba wallahi du ma euh, du ma noppi ndax xam naa ci lu bëri maa moom yàgg nañ sama xarita waaye gis naa taxawaay taxawaay boobu nag damay wax ne siggal na ci kër gi ndax ñun ñëpp kat kenn ku ci nekk mairie ba ba nga fa nekkee daa kër goo fa nekkal. moom nag moo fi nekkal kër Cheikh Modou Lamine ni ma nekkalee kër sëñ Fallou foofa awma lu may kër sëñ waaye moom it amul lu may kër sëñ taxaw na fa taxawaay bu rafet bu am solo kon sa Abdou Karim yow mi ngay xam ne yaay kilifaam di léppam ak bokkam yi mu nekk door nañ ñu ne mën a seere loolu ci sama kàddu ci kaddu ko Abdou Lahad waaye kaddu mbooleem bureau bi muy képp koy adjoint maire wala nga bokk ca commune ba rek xam nga li ma wax du ay fen parce que nit moomu alxaq dëgg rek mooy sax waaye leneen lu mën a doon tam bokk yëkkati wala wax ko rek bu du dëgg nit ñi nañ koo xam kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax ci turu monsieur Abdou Lahad Ka ak turu mbooleem képp koo xam ne nekk nga ci commune bi di liggéey ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp waaye di sant sama xarit sama lépp muy sëñ euh, Jili Abdou Lahad mi Abdoul Aziz mënuma ko ñàkk tudd ndax day sama lépp moom itam di sama xarit ñu bokkaat ko sëñ Fallou kon mom itam bu mi tek ko sant sama mag je seigne abdul euh, si Lahad Baara taxawayam rafet na lol man ci sama walu bop ci lo xamne jappé jàppee na ma ko en tant que mag waye jappin wu reuy bo xamne chaque année amana bis bo xamne ne bu koor ñëwee da ko and ak seigne Abdou Aziz mi ak waa kii sama kër nek ndogo fa def fa lepp ci bu ko neexon amna ko waye dafa may sagal rek bëggal ma lu ba kon ma ngi lay sante di sante ñëpp di gërëm ñëpp di wax alaykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi yëkkati ay kàddu si suñu ndigalul kilifa yi waaye nag kàddu yi dañuy jéggalu ndax suñuy kilifa rek ñoo fi toog si ndigalu ba Abdou Aziz mi nga xam ni moo ñu teete tey ba ñu mën a toog fi tey ko yàlla may ko fan gudd loolu ànd ak wér ak mbooleem dongo yëpp ak mbooleem kilifa yi waaye di soññ sama bopp di soññ mbooleem taalibe boo xam ni sukk nga jébbalu ñu ngi lay soññ ñu gën a góorgóorlu ci kër kilifa yi ngir gën a jaayante waaye ci loolu dañuy sant mboolem daayira yi nga xam ni àndoon nañu ñu liggéey màggal gii di màggal Cheikh Abdou ñu jàpp si bu baax a baax a baax xam naa bu ñu limee sax dañuy jum waaye mboolem daayira boo xam ne teew nga fi tey jàpp si liggéey bi ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla defal la tawféex defal la jàmm di soññ sama mbokk taalibe yi ñu gën a góorgóorlu si taalibe ndax ak taalibe kat dafa war a góorgóorlu si kanamu kilifaam. ndax bu fekkente ni si danga nga ni aslamtu si su ko jébbalu amatoo dara looy bàyyi sab sëriñ yaafusug taalibe nag mi ngi tàmbalee si nuyu sab sëriñ mu naan la noo santite wala kuy sa waajur kon loolu ñu ngi si soññ sama bopp di si soññ mboolem ñi nga xam ne ñoom laa seexal Cheikh Amadou Lamine ak fu waay mën a nekk ñu gën see góorgóorlu ndax ku am sëriñ bu matub sëriñ sëriñ bi ñëpp tiitaroo dangay fexe ba bañ saa des ginnaaw ndax si Abdou Karim mi toog na ni sama taalibe fu mu nekk xam naa li gën si moom maa ngi ni jàkk samay bët si moom kon nag ku am mel noonu waroo des ginnaaw waroo yaafus kon ñun taalibe yi nañ gën a góorgóorlu si suñu kilifa yi ba saa yoo jotee ndigal muy guddi muy bëccëg lépp loo jàpp nga bàyyi ko ngir taxaw si ittey sëriñ bi ndax ñom ñi kat ñom la titro ñom ñoom sago xana kenn ku ci ne ci ñom dañ leen ñaanal yalla dafa la jam dafa la fanu gudd and ak wër ndax talib mom day nuy nay ñuqi joxe kon nag ñun kilifa yeen kilifa ñu leen ñaan ngeen di ñaanal talib yi saa su ne ñuy am ba man di joxe addiya waye nak bu fekkente ci lolu bala am talib bi moy wane firna jojja ndax bu fekkee da nga ni sëriñ diw mooy sama sëriñ sa sëriñ bi bu la gisee tey bala laa di déwén kooku taxul ñoo xam taalibe kon ñun taalibe yi nañ góorgóor si sëriñ si ndax ñoom lañu sago ñoom lañu ci tiitaroo amuñu lu dul ñoom ku bëgg nag saa yoo jàqee woo sëriñ bi mu wisi la da ngay dox tànki fulla bañ a caaxaan bañ a dugg si yenn nduxum yi loolu mooy fu taalibe kon maa ngi si soññ sama bopp di soññ mboolem ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Cheikh Mamadou Limine rawatina kër gii di kër Cheikh Abdoul Karim ndax sëriñ bi kat ku fonk taalibi la comme ni ko sëriñ waxee sànq bu lay ñaanal day mel ni bu fekkoon lu ne si poosam da ko génne jox la kon Cheikh Abdoul Karim Mbacke ñu ngi ko ñaanal bu baax suñu borom may ko fan gu ànd ak wér ku ñàkk caaxaan la ku bëgg lu baax la ku bëgg mbokk la tey ku bëgg taalibe la taalib bi si am ittee balaa am njàmbur aajo jooju daa faju nit dana jóge fii dawal otom fekk ba Mbàkke Baari ñaanal ko aajoom faju ndax bu fekkente nit dafa jóge fi sori naan la yóbbu ma sa sëriñ bi mu ñaanal ma nga yóbbu ko aajoom faju boobu sëriñ sëriñ bi matu sëriñ la kon ñu ngi soññi suñu bopp di soññ taalib yi ni fonk kilifa yi di fonk sëriñ yi nga xam ni amuñu lu dul ñoom ndax taalib bi bu fi raw kat dafa fonk sëriñam rek waaye boo si afusee naan gaa yaa nga sa rek gaa yi doon dem bala boo ñëwee daayira bala ngaa ñëw kenn xam kañ la boo ñëwee màggal bala nga ñëw ci déwén bu la sëñ bi gisee balaa nga si ci déwén loolu taxul ñuy wax ak taalibe kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.